nañu ko njiitu réew di président Macky Sall yéene kaay gi di Walf Fadjri nee na juróom-ñetti poñ yi nga xam ne ak déggoo amusa sa ci biir dialogue national bi te ñu jox ko njiitu réew mi di président Macky Sall ba léegi nii maanaam yeyul yàbbi sa mbir ma yéene gi di La Tribune xëy waax ci ñi nga xam ne ñooy béykat yeeg jafe-jafe yi nga xam ne jamono jii moom la ñuy dund ak njàqareeg tiis bi nga xam ne moo leen dugg ci taw yi nga xam ne jamono jii gisaguñu ko ñi nga xam ne ñooy béykat yi maanaam taw la ñu soxla te ay semaines yu bare bari ma ngi nii maanaam tëw te nag li nga xam ne maanaam mooy sàq yi yi sàq yi vidd na béykat yi lépp loo xam ne yor nañu ko denc nañ ko ci suuf te ba léegi ni tawagul yéenekaay gi ne na ñi nga xam ne ñooy béykat yi en tout cas jamono ji jaaxle nañu lool rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk diiwaanu Saloum Ndoukoumane ak Sina yéenekaay gi di évidence nee na ministère bi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllu mbay mi syndicat bi nga xam ne moo ëmb liggéeykat yi ñoom nag ni ki démb dañoo waxoon ne dañuy amal li nga xam ne mooy ab gréwu xiif la waaye nag loolee teg ko ci suuf ginnaaw ay médiation yoo xam ne daan na say am li am ci yéenekaay gii di laas lu doy waar a doy waar la docteur Khadijata Diallo mi nga xam ne moo jiite centre bi ñuy fajee lu jëm ci coronavirus ci hôpital Fann def na ay révélation nee na ñi nga xam ne ñoo amee grippe quatre-vingt-dix-neuf pour bu ñu leen testé maanaam dañuy coronavirus yéen kay gi di l'Observateur nee na Covid 19 bi tax na bëri na ñoo xam ne ci pharmacie yi la ñuy dem maanaam jënd ay médicament di ko jëlal seen bopp te loolee danger la maanaam musiba ma bu kumba gu rëy la ndax mën nañu see amee hépatite mën nañu am ay jafe-jafe cardiaque yéen kay gi Quotidien nee li doy waar ci réew mi am na ñoo xam ne dañuy joxe ay faux rawatina ñi nga xam ne ñooy tukkikat yi yéenekaay gi nee na logo IRSF moo sa nekk waaye IRSF ni ko démb génn nañu ab communiqué nee nañu ñoom seen yoon nekku sa seen ngañ ñi nekku sa nee ñu sax danañu porte plainte yéenekaay gi de la Soleil xëy dañu xibaar naan ñu askan wi jamono ji maanaam xam nañu nag loraange yi nga xam ne coronavirus maa ngi koy defa moo tax ñenn ci askan wi jamono ji maanaam ñoo ngi riir wuti fi nga xam ne mooy centre yi ñuy ñekko yéenekaay gi de la Témoin xëy nag wax ci lu jëm ci wàllum ubbi liste électorale yi maanaam mbind mi journal bi nee na dañoo ubbeeku fanweeri fan ak benn ci weeru sulet ñu fas yéene koo tëj sàttumbara 2021 yéenekaay gi di Sud Quotidien nee ci biir APR bëri na ñoo xam ne nee na ñu candidat la ñu ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéenekaay gi nee na li nga xam ne mooy bëgg-bëggu bëgg Macky Sall ak ñenn nit ñuy doxi maanaam méngoowul yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu askan wi nga xam ne ñoo dëkk Ndakaaru ci gox bii di zone A ak Grand Dakar askan waa nelawutuñu ba yandoor la ko waral mooy ak agresseur yaak bandi ya nga xam ne ñoo fa nekk di jaaba jonge di agressé askan waa ak di sàcc li nga xam ne mooy seen moomeel la yéene kaay gi ne na mooy bandi yi nga xam ne moto la ñuy yor journal bi di Les Échos xëy dañu xabaar naan ñu association de malfaiteurs ay nit ñoo xam ne dañoo lëngoo di def ay ñaawteef ñoo def ñaw ñaawteef bu doy waar a doy waar benn malien boo xam ne gars yi dañu ko teg loxo séquestré ko kidnappé ko ba pare di ko fitna la laaj ay mbokkam lu toll ci neuf cent mille francs ngir nag ñu mën koo bàyyi yéene kaay gi délibération xëy dañu xibaar naan ñu bande filao yi nga xam ne ñoo nekk géejiwaay dafa am lu toll ci neuf hectares yoo xam ne syndicat bi nekk impôt et domaine ak agent yi nga xam ne ñooy liggéeyee cadastre ñoo ko ngar daajoo woon journal bi nee na nag suuf soosee nga xamante ni gars yi jëloon nañu ko état bu Sénégal daa dinay xotti décision bi nga xamante ni maanaam moom lañ leen joxoon ngir nag ñu séddale leen suuf soosee yéene kaay gii de la témoin ak las xëy see exonération fiscale 2015 2019 yéene kaay gi nee na lu toll ci ne ma ngi jayeex jayeexi maanaam ngelaw li kaay gi di 24 heures nee na dépense fiscale yi manque à gagner la lu toll ci 3 447 milliards yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na xale yi nga xam ne ñoo doon jéem a rëcc ci benn daara ci Touba am na kenn koo xam ne ñàkk na fa bakkanam yéen kaay gi di sunu làmb nee na combat Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier ndax dina am ak coronavirus bi Balla Gaye numéro 2 nee na en tout cas li am ba desal Bombardier su ma jàkkaarloo ak moom dinaa ko defal bagage te nag dama koy yóbbu sax retraite loolee gën a gaaw dama koy yóbbu retraite ndax Bombardier